al jurusi say aji keke al mawadi sadi suuf si day wett cey señ bi ni nekké won waame wo xamné day fekk xol yi day wett wett mu taw ci taw bañu nataat da fekkan ñu bekkor lool day wett wett way rek mu nekk taw bo xam da leen di dekkalaat lool la yéem وقال وخات نيت ايضا بتاي نه دهاه ونكو ilal الكرامه jëm ci teranga la mu tabihi aji tanam ja liyej si yahoo ngir mu fay ko almasaañi jëf ya assaalihaati ya di way yiw nee yàlla ci boppam moo sëñ bi bëgg koo fayee teraanga ji nga xam ne moom la ko dencaloon ndax lu baax lim daan def fa labbaahu te muuyu ko fa alfaate mu fekk maa la nga xam ne taman naa mébatoon nag la dey fa moom yàlla minal masaaya ci ay ngëneel alfaaxiraati yu di way taaru wala yu di way rëy sëñ bi daal di wuy ji boroomam fekk fa nag lépp la ko yàlla doon xaaroo muy xeetu nganale muy xeetu ngeureum ak teranga fekk na fa lu upp njortam fa asbaha ti xey fa ñakam ihdad dawahi di kenn ci yi waxat ban tey mbamb taalihan muy aju ñek maanaam mu naqare xol na ayen nuhati tay tagget way tagge ña ene señ bi genn gi mu genn nyep njuma gu réy réy la goo la jomal tis la wo xamne ci kaw ñepp la dal génn àdduna ak sëriñ bi dafa rëy rëy ba nga xam ne ya ko jiitoon yépp dañ leen a fàtte mel ne moom rek moo ko njëkk a def mada wéy na alxabdu jàmba alxadiimu kay liggéeykatu yonante xamida saayin mbir mu muy ku ñu sant jëf naqiya sirri te aji set mbóot min show bil hanaati ci raxuk ñaawteef ya ene sëñ baa ngoog wuy ji na boroomam di ko yàlla sant jëfam di ko set wecc dara dara lu yàlla gërëmut ci jaamam mosu ko laal madaawi na alxabdu jàmba alxadiimu kay lëggéeykatu yonante walam yu fajjir te fettalut si waa xay ni luha lu may batub ay may wala antiyaati ak ay may ba tey ne sëñ baa ngoog wuy ji na boroomam te nekk wi fi woon lu may joxe lam yor ci xam-xam ak diine ak àdduna ak alaaxira di ko jox ñëpp te yàlla tax loolu rekk la fi nekke woon wa maraqdul jiyaadi déet sojal naaru góor ya bi xamil mu yitte la ñeel ko wala xarasul nax yel yi du caageenu jëmbat tàndarma ya al mukrahaati yad yi ñu dëtëmal tàndarma yi ñu dëtëmal mooy yañu samp wetu ndox ma nga xam duñu aajowoo suuxat dafa wax ne pagguteefu àdduna mësta nekk pagguteefam mësta wut ay naaru góor mësta wut ay tool mbaa lu koy nuru wa ma hayshul muluki det dundu buur bi hayshin bi ab dund la wañal ko wayn axta ak doon te joxe na al jifana bagania mukallalatin mu kallalatin mbir muñu lu ñu peeg ñoom bagaan yi leen daana joxe ay day rek xam na bagani yi ci biir ci biti waaye moom ci boppam day mësta dundi mukk loolee muy joxe ca bagaan ya déedéet daraan féete ak lumayala, dund dundinu ku lu may ku lu may waye bagaan yoy lamuy bari bari musta dunde lu mel khatimatun li ab mottuli fi tahaddusi ci waxtane bi ma ci lenn li nga xamné man mën na xéewle na yàlla xale ci mom sëriñ bi bi ma ci la nga xamné mem ma ci la nga xamné ne yafooqu dana kawe ak na njort la na xëyri ci aw yiw baada tahyibihim ci gannaaw seenu soyal ñoom noon ya manam gannaaw tas seen yaakaar min maka idihim ci seen pexe ya ak talaas yet di yett alqatli te moo ak ray wal habsi akuk tëj addaa imi guy aji sax wa taxaribi akuk tumurankeel addaa imi guy aji sax faqaala te mu wax moom sëriñ bi ne oo mimma bokk na ci li nga xam ne man na xewle na ko allahu yàlla xale ci man badala talaasatihim mu wecc seen yett yooyee kawnu sini xurbati nekku ati sama tumuranke gi mustaxrajatan di lu ñu génnee min balaaya ambiyaahi ci balaay yonenteem ya wa fitnati ak seen fitna allati ja nga xam ne jarat dawoon na baynahum seen diggante wa bayna aadaahim ak diggante seeni noon nee sëñ bi doon na waxtaane lenn li ko yàlla xéewale gannaaw bi nga xam ne noon yi pexeel nañ ko seen yetti pexe yooye te menn sottiwu ca yetti pexe yi nag waxal nañ ko ci gannaaw ndax conseil privé ba ñuy seet ba xam lu ñu war a def sëñ bi daa am ñu waxal ne nañu ko rey ñu ne rey gi moom su ko mbaa bu sottee itam deret moom fu mu toll di tuuru ci réew mi mooy tuur deret du fi jóg mukk am ñu ne nañ ko tëj fii bu mu génnati ñu ne boo ko tëjee fii ñépp fàq fekk si ko dëkk bi fees kenn du xam looy liggéey ak looy def am ñu wax ne nañu ko génne te loolu mooy tumurankeel gu sax googu mu tudd ñu ne ah génne googu de moo ci tane waaye kon day sori lool ndax bu soriwut fu mu nekk nit ñi fekk ko fa te yooyu kat moom la waxan ci gannaaw ne la moom la nooni yonante bi doon fexeel yonante bi kon mu dëppoog pex ko noonam yi doon fexeel ca la doon waxe naa wa id yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkurullahu wallahu xayrul maakirin sëñ bi nag ne gannaaw bu yàlla tasee seen yaakaar ci seen pexe yi menn sottiwu ca yàlla faye na ma day at yi ma tumuraanke yàlla fonk ko yéegal ko ba àggale ko ci balaay yonente ya nga xam ne balaas ba muy peesee balaay yonente ya ak fitna ja xewoon seen digganteeg seeni noon ca lay peesee sama ati tumuraanke googee ak la daj sama digganteeg noon yi ba tey la mu fayoon yonente yooyee ci seen jihaad jooje moom la may fayee ci sama tumuraanke gi ak sama jihaad ji وفيه تلول صح يقول لسن بدي وخنا ومن خوارق النبي بقنا تي ويخوتي باقي ينتبه المفضل كدي كن جنل عليه يلا نكتمهم تسليم العلي ياري مسلي يلا مي أجي كوي المفضل كي أجي جنله بني ياري مسلي فجبلو صلاة والسلام كونو سيني تغربي نكو أتي سما مرانكيجي مستحرجة مستحرجة di lu min zaman ci jamono mada jujuwe na mazaya tey ay ngëneel muxra jatan yu di ñu génne xaddu shubbihat nuroleef na leen bima ca la nga xam jara xewoon na min rusli bàyyikoo ci yonante yi ilal lazina jëm ci ña nga xamee ne kulluhum képp ci ñoom xadd fajara saay saay na alayhim yàlla nekk ci ñoom assalaatu wasalaam ak kaman tafat niki dàqoo bi ba'sihim ci seen yoni zalamul zalaamul kaman tafat nak bu fekke ni du sëñ bee ci def att ji manes na jang kaman tafa bi dane lima yalla defal te moy sama ati tumuranke goge mu yéegal ko ci jihati yonente ya yamale leen kep nee na da rek ci xar baax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla feeñale ko ci man nga xam ne sama jëf ji da koy tollul ne jëf yooya pay gi may payit da koy tollul ne pay yonente yooyee waxad badat te feeñ na mojisatun mojisa qablu ca bu jëkk badat bu feeñ na lil mustafa ñeel kañu tànn fi ghurbati ci sama tumuranke gi waqad hadat te mbir mom jubal na wahiya te mom mu'jisa bobu kawnu man moy nekkuk xamne tasabbabo sabab lu nañu mahan bolesen, Fia, fiha ci tumuranke ga haydal lazi di noni yalla mi nga xamne jamaha na almunami badiya li ñeel ma adghabato ñeenañu man ña nga lam ne neeku ñu won ma di and ak ñoom minal ay ca non ya war rabbu te buur bi not na leen li ñal ma wa an man ak naka ña nga xamne ne sababu nañu ci tumuranke googu laa yadduxuloona duñu dugg jannati llahi ci àjjana yalla ja wa yadduxuloona te danañu dugg naran sawaro yalla wa annahum ak naka ñom laysa lahum deddi ñel leen fi abadin ci faw moy ba mukk malam ya tobo li fek tubuñu du len ñeel ghayru abqa kabadin ndare gën ja desi njaqarek tis suñ bi ne amna mu'jisa bo xamne mu'jisa bi yonent bi la yalla feñal ko ci sama tumuranki gi te moy mbolem non yalla yi nga xamne ño sabab tumuranki gi ñu ñe ku ci bokku ñom kep ku ci bokkon da nga ñe ku ca bokut ndax képp sëriñ bi ne mbooleem ñi nga xam ne ñoo doon sabablu génne googu ñu fu génne di ko tumurankeel koo ci xam ne tuuboo rek sawara ngay jëm tayit li feek yaa ngi des di dund naqar ak tiis rek ngay wéyaale koo ci xam ne tuub nga nag ñu jéggal la may la yaani dana jublu ne annallaaha naka yàlla tabaaraka barkeel na wa taala te mu kawe ci ngëneelam wa joojihi akuk tabeem wa karamihi ak tedd ngaam shabaha nuróole na maa la nga xam ne jaraa xew na bay nii sama diggante wa bay na aada ak diggante samay noon mina taxari bi ci tumuraankeel wala fitani ak fitna bi maa ca la nga xam ne jaraa xew na bay na ambiya illaahi diggante yonante yàlla yi wa a'daa'ihim ak seeni noon wa shabbahate mu nuroole maa la nga xam ne tawalla da juddoona lii ñeel ma min haa ca yooyee mina nafi ci njariñ zahiran ci zahir wa baatinan ak ci baatin man nga ne zahiran ci lu feeñ wa baatinan ak ci lu nabu xaalan ci teew mi teew wa ma aalan ak ci ëllëg bi maa ca la nga xam ne tawalla da ne tawalla da judduna wala xew na li ambiyaahi ñeel ay yonanteem alkiraam yi ña di way tedd wa shabbahate mu nuróole maa la nga xam ne tawal na da juddoona min haa ci ñoom min darari duniyaa ci lori àdduna wal li man ñeel ka nga xam ne lam yatub tuubut min ci ay noonam bi maa ci la nga xam ne tawal la da juddoona min haa ci ñoom li man ñeel ka nga xam ne lam yetub tuubut min ahdaihim ci seeni noon wa anna man ak naka ña nga xam ne tasababoo sabablu nañu fii tilkal fitani ci yooyale fitna xadd xabatoo ñee nañu man ñi nga xam ne lam yakkoonoo nekkuñu woon maahum di ànd ak ñoom fiiha ca fitna yooyee yàlla dafa def li sëriñ bi daj ci digganteem ak ay noonam mu toll ne ci biir ak bitti la yoonantey dajoon ci seen digganteeg seeni noon lépp lu yonante ya aman ci njariñ ca xew-xew yooyee xewan seen digganteeg seeni noon muy njariñal zahir muy njariñal baatin sëñ bi itam yàlla da koy defal lii xew digganteem ak noonam yi mu amee ca njariñ yu toll noona ci biir ak bitti tey ak ëllëg nga xam ne kon lu yonante ya aman ci njariñ ci àdduna ak alaaxira ci biir ak bitti ca seen digganteeg seeni noon sëñ bi am na ko tey ak ëllëg àdduna ak alaaxira ci li xew digganteem ak ay noonam teyit la yàlla tegan noon yooyee doon jëflanteeg yoonante yi jëflante gu ñaaw googee moom la yàlla teg ba tey nooni sëriñ bi bu fekkee ne deltuwuñ gannaaw tuub ko ci xam ne tuub nga daal moom ñu jéggal la nga bokk ci waa kër yàlla ak sëriñ bi waaye koo ci xam ne tuuboo moom la yàlla tegan noonu yonante moom la la yàllay teg ba tey bépp noon boo xam ne bokkoon na ci fitne yii faaw rek dana ñee ka ca bokkutoon ndax la koy dal tey ëllëg bu tuubut moom faaw mu réccu ñee itam ka nga xam ne bokku ci woon wa yow ma yaxaddu fàttalikul bis ba dana mat ak zaalimu aju tooñ ja xalaa yade yi ci yaari loxoom yaqoolu di wax ne yaa laytani ak neexoon man ittakhastuma jàpp ma har rasul ànd yonante bi sabilan yonu mucc ya way lataa yéem naa sama toskore laytani ak neexoon man lam attakhiz jàppuma fulanan diw khalilan mudi di ab xarit laxad adallani réeral nama han xan walis alquran baxda id jaani ci ganna ba ma dikkalee wa kanata nekna te musta dañ asheytaanu shaytané qadolan di ab kon lil insani ñel nit nee nañu laaya jooju la ko tax a wàcc ku ñu wax hukbatu dafa tuubon ba tuddu seres l'islam bëgg lu neex ab xaritam bu ñu wax ubay ibn khalaf tax ko tubbi moy genn ci l'islam ja alquran ni ah aji tooñ joji day moy xoqubatu bu bis pencee da nga gis muy mat baramam di wiccax na ay ak neexon ma top yonante bi ak neexon diw jàppewuma ko xarit ndax mom day gannaaw ba ma waro ba dug ci l'islam moma reral genn ma ca sun borom nak ne setané day mom non rek la baxo def doomi adama da koy jiñax ci aw ay ba nopi nak deltu gana wacc ko nak ci ay wa di ko seetaan ak ree lu mel ni lii dal xuqbatu nag mooy dal képp koo xam ne bokkoon na ci ñi génn sëriñ bi di ko tumurankeel su fekkee ni tuubut lu mel ni rek moo koy dal bu ëllëgee shaahidatan ngir mu muy seere laxoo ñeel yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walil ambiyaay ak ñeel yonante maxaxoo ànd ak moom alayhim yàlla na dollee nekk ci ñoom asalaatu dolli teral wa salaam ak dolli woolu mojisatan tey mojisa wa shahidatan tey seere lii ñeel ma karaamatan tey xar baax min hu tukkee ci moom fa laxoo ñeel na ko alhamdu cant ga wa ak ngërëm la xalaa tawfiqil ittibaaxi ci dëppaleeg topp ga sunna sëñ bi ne ni yàlla def yéegal samay jihaar ak samay coono ci hari yonante ya, ak seeni ciona lepp lu mu len ci defalan ci njariñ biir ak biti mu defal ma may itam muy njariñ biir ak biti lu mu tegan seeni non mu tek ko say non neena lol day seere la su su wonene ne fi nek ak ay yonanteem ak ñako gëm gëm ay yonanteem li dal lu ko yalla defal la neena mu bok ci yonante bi nga xamne dañoo yéex a dikk te bu dee ci moom sëriñ bi nag muy karaama gu rëy rëy gu ko yàlla defal moo ji sa ak karaama nuroo nañ ni xam lu ci nekk lu xotti baax lay doon te bàyyi ko ci yàlla yàlla terale ko ab jaamu waaye moo ji sa mooy la feeñe ci kay woote yonante mu dëggal ne ab yonante la karaama mooy la feeñ ca waliyu wane ne waliyu yi diine ji mu nekk ju yàlla gërëm la te moom mii ku yàlla gërëm la ab taxawaayam kon nag moom sëriñ bi mu ngi dellu di sant yàlla di ko gërëm ci dëppale gi mu ko dëppaleeg topp sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa ba am ci li mu ci am tey jii ak ëllëg jële wa min asraari xaybat bokk na ci secret sama tukki bi an man na ba xéewlee allahu yàlla xale ci man bi sabaxi karamaatin ci juróom-yaari karama mu ajisaatin te ñu nekk ay muxjisaat li rasulillahi ñeel yonante yàlla bi صلى الله عليه وآله وسلم وهي تنوم مودي غلب نطن لي نيال ما الله يلا أعدائي سمي نون قبل الظهوري تنك سمك فين وهب ما ينيت لي نيال ما حيل من خم خم لم يكن ببنكت من التعلم جتوكي جي خملو وباها تبوكري وانتك رسول الله يننتي الله بي صلى الله عليه وآله وسلم كل الأنبياء مبولم يننتي bi ghurbati ci sama tumuranke gi hashra sinina fukki at wa khidmati ak sama liggéeyal la ho ñal ko ha ci fukki at yoyu al khidmata liggéey ba al khalisata bi aji sel wa hababani te soppaloo allah yalla ta'ala kawena ila kulli saidin jëm ci jëpp aji taxé wa munagulo iblis a iblis wa kullu laayinin ak kep ku ñu ragu wa kullu laayinin ak kep ku ñu rabbu ho and ak mom min ci man wa hababani te soppaloo ma moom yàlla taala kawe na ilal malaayikati jëm ci malaayika yi alkiraami yi di way tedd wa habbabani te mu soppaloo ma ilaa muminil jinni jëm ci way gëmi jinne yi wal muslimoona te jullit ña sax minhum ci jinne yi fii zamani ci sama jamono ko aju nañu biyee ci man li wàccillaahi ngir jëm yàlla sëñ bi dane juróom yaara ngi ñi yoo xam ne yàllaa ma ko xéewale muy ay karaama te fekk na sax ay saat la woon ci yonante bi waaye man nag yàlla defal ma ko muy ay karaama xam ne nga xam ne kon juróom-yaar yi day mujisaati yonante bi yoo xam ne dañoo yéex a feeñ te feeñ ci man doon nag samay karaama man Ahmadou Bamba bi ci njëkk mooy laata may feeñ rek la ma yàlla notalan saay noon muy benn ñaareel bi mooy yàlla may ma xam-xam boo xam ne da koo soob rek mu xamal ma ko waaye nekkul lu ñuy jàng ak sabablu ba di ko xam ñetteel bi moo yonante bi xalantoo na ma mboolem mbokk yonante bi ne leen waaw sama waay ji ana ku ci am ci saw xeet ku mel ne moom sama tumuraanke gi nga xam ne nee na fukki at la ma saxal ci jaamu yàlla gu sell ak liggéey yonante bi liggéey bu sell nee na loolu daal daa rëy fi yonante bi ba yonante bi wëlbatiku di ko rewo ci kanam yonante ci dess naa ku am ku melni ki ku am ci yéen ku jëf lu tolne ne li kii jëf bi ko ñeenteel dafa def kep ku nara taxé rek damay sopp amul kenn ku nara taxé te dooma sopp kep ku ma soppul rek yalla bind ci mom ak ñaka taxé bi moy yàlla dafa naaguloo iblis ak ay gaayam ne leen ahmadu bamb mi jëlu ngeen di ko fexeel ngeen di ko dara dara dara ndax du ngeen ko mënal dara dara muy juróom bi ko juróom benneel mooy yàlla daa def yep malaaka yépp yépp yépp ñu sopp ma muy juróom benn juróom ñaareel bi nag mooy yàlla dafa def mboolem ñi gëm yàlla ci jinne yi ñoom ñépp ñu sopp nee na jinne yi sax ñi ci taseel jamono te ñu di ay jullit ci man lañu aju te ma ma di seen sëriñ ñu doxali ma seen digganteeg seen boroom wa fi haza ci lii yaqulu lay waxe moom sëriñ bi ne wa sabahu mojisaatin juróom yaari jisaat li rasooli ñeel yonante bi xad zaharat feeñ nañu fiye ci man wa fustu te tuufu naa bi soolin ci pajug aajo qablaha ci seenu jëkk te mooy xalaba not rabbi sama borom lii ñeel ma alxida noon ya qabla zuhur yi njëkk sama feeñ mu defee ko bil muxtaar ci darajay ka ñu tànn la ulaax duma man ka nga xam ne xadaa jalgatina wala tooñ na mbaa noonoonte na wahaba may na it lii ñeel ma rabbi sama borom ailman xam-xam lam yakun bob nekut min at-ta'allumi du tukke ci xamlu waja dikkal na ma rek wala waja te mu dikke ma bi kun ci kun baha pukare won te nak rasulullah yonante yalla bi kulal anbiya mbolem yonante yi alayhim yalla nek ci ñoom azka salamay rabbiya gën ja selli yari musali sa borom bi ne yari musal rek moy assalatu wassalam bi xurbati ci sama tumuranke ashra sinina fukki at bi xidamin ci ay liggéey xaalisat ñu aji sell li jël wujudi ñeel borom am nga wal xidami ak jitu ga yuhibbuni dana ma sopp li wajhi rabbi ngir sama borom al muhayyi di kay aji dello jam ñi gana ba ñakke bi xeyri bokhdin ci lut ak bañel abadan mukk kullu sa'idin jep aji taxé kullu moy faayili yuhibbuni ay yasa rabbi sama borom abadan faw waxwate moom almu'inu mooy aji dimbalee ja naagaloon iblis iblis minni ci man wa kasaaliki nii aynin kep kuñu rabbu man nga ne wa kullal ayn ak kep rabu rabbu kasaaliki nii patay bala nexi jang wa kasaaliki la kullal aynin kep kuñu rabbu yuhibbuni dana ma sop malaikul baqi malaaka yàlla mi aji des karimi ki aji tedd li wacc yi ngir jëmmam ji moom yàlla maxa falaahin ànd ak texe laa yar yi mu koog du dañ xadd waddani sopp ma it man ñi nga xam ne nañu fil jinni ci jinne ya li wajj yi baaxin ngir jëmi aji des kaana koog nekk na lii ñeel ma bil man ni ci xéewal juróom ñaar yi mu wàññi woon ci wesar yi moom mi taalif moom la andi nag ci wayi sëriñ bi mu ne sëñ bi nee na am ñaar yi yoo xam ne yonante bee ko moom waaye daa feeñe ci man ci sama jamono mayit nag mu doon samay karaamaat te naka jekk yàlla ma mayen ci coobareem pajug aajo faw faw ba ci jëkk mooy way wi tàmbalee ci xalaba bil muxtaar yi way woowu dane sunu borom day ci dara ji yonante bi laata may feeñ rek la dogal ne danaa taseeg saay noon waaye noon ya moom nootal na ma leen ba noppi léewtoo rek moo fay nekk ak feeñal yéene ju bon rek waaye daanu nañu ba noppi loolu yàlla dogaloon na ko naka jëkk njëkk mooy feeñ fii ci àdduna ñaare bi moo tàmbalee ci waxabali rabbi man suñ boroom da koo soob mu may ma xam-xam boo xam ne nekkul bu ñuy jàng ko sabablu daa jekki-jekki rek mu soob ko mu may ma ko ñetteel bi mooy fukki at yi nga xamne mom la laa tumuranke sax ci jaamu yalla ak lëggeel yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa rëy reey ba yonante bi di ko wo ci kanam ay mbokk yonanteem na len waw ku ci am ku melni ki ci saw xeet ñentel bi moy nee képp ku yalla bind ci mom taxé rek faw damay sopp nga kon ñaka sopp sëriñ bi mandargam texé dila way wo mo tambalé ci yuhibuni li wacc rabbiyal biko juromel moy yalla dafa nagulo iblis ak ay gayam ci man moy ne len dal ahmadu bamba mi jarul ngeen diko jemal dara ndax mom du ngeen ko manal dara dara biko juroom benel moy neena mbolim malaaka yalla sak yep yep dañ ma sop te jëm yalla dong tax ñu sop ma Lalu moy wayu yuhibbuni malaikul baqil karim ba mu daanu bi ci mujj nak moy wayu qad waddani man amanu fil jinni neena yalla dafa def mbollem ñi ko gëm moom yàlla ci jinne yi ñom ñep dañ ma sopp xamne jep jinne ju gëm yalla rek sopp nga ma ta yalla tax qawluhu ja sax fil jinni ay limu ci namu moy minal jinni bim ne qad waddani man amanu fil jinni la bëgg wax waqaala wax na fii mawdihin ci ab béréb aaxara beneen ne biyee ci man taallaqa la aju allazina ña nga xam ne aslamoo tuub nañu min jinni asri yi ci jinney sama jamono doona man ci ludul ña nga xam ne lam yuslimoo tuubuñu wax ne ci beneen béréb ne sama jamono jinni yi ci nekk ay jullit ci man lañu aju def ma sëriñ def ma seen weerukaay seen digganteeg seen boroom ñi ci nekkul ay jullit nag jotewunu dara maak ñoom waqaala wax na it aydan ba tey ne xëpp yàlla na nga may lilla si ñeel ka nga xam ne xadama ñi lëggéeyal na ma ihsaanan ak rafetal malakan moo xam day malaaka aw mastooran mbaa muy kuñ suturaal te mooy jinne aw insaanan wala muy nit xulima xamees na minhu ci loolu ne ànd la naka ñeel na ko xadamatan ay liggéeykat xayra xuddaami yi ñu dul ay liggéeykatam minal insi ci nit ñi sëriñ bi dane sunu boroom képp ku may liggéeyal muy nit muy jinne muy malaaka may ko ixsaan ixsaan na xamunu lu ci sëñ